ñu ngi lay fay. tey mu nekk 8 mars journée mondiale de la femme la moo waral sa teewaay fii. Euh, sama teewaay fii du lenn dul en tant que jigéen ah déjà muy fës déjà maa ngi nuyu mbokku internet yi ñuy seetaan à travers site yëpp ah euh, maa ngi leen di nuyu bu baax di la nuyu di nuyu sa consœur bi nga xam ne moom nga taxawal euh, tey suñu présence fii mooy wax dëgg yàlla porteur de voix yi ñu doon ba pare jigéen bi xew xewle tey ñu war leen delloo njukkal. donc ñoom ñii nga xamante ne fii mooy prison d'arrêt euh, bu femme de Liberté 6 fii ci camp pénal ñu ñëw fi pour ñoom it boole wan leen ni carrément ñu ngi bokk ak ñoom feet bi ay jigéen lañu nattu dal leen ñun bokk ko ak ñoom àndandoo ak ñoom saafante ak ñoom loolu mooy suñu teewaay fi ñu gis ne tamit daaw Sénégal dundoon na 8 mars mais ay jafe-jafe ren jii ñu gisaat moom maa am na leen lu xewaat si maanaam si mbir mooy artistes yoo xamante ni ñoo ngi jàpp seen jabar yi euh, jàpp ni ñoom leen di dóor à chaque fois euh, noo gisee loolu voilà violence boo xam ne ñoo koy def jigéen ñi euh, artistes jàpp seen jabar dóor ko yow yëguma ko mais xam naa ni <laughs> jigéen wax dëgg yàlla am na leneen duñ ko war a mën a defal lu dul ay dóor wala leneen loo xamante ne euh, warloo nañ ko ak moom lu dul métital donc euh, ñun Sénégal baaxoon nañ chaque 8 mars ñu koy féete daaw corona bi moo taxoon euh, ren wax dëgg yàlla dara xewul donc dañuy sant yàlla ba ba bët tout va bien donc ñu koy passé ci ci ci anam yu leer waaye nag dóore bi moom ak métital bi moom loolu du yoon te jàpp naa ne ñu ngi ci xeex boobu ba tey. am na violence yoo xam ne peut-être ñii ñoo ngi si biir mais am na ñoo xam ne ñoo ngi seen biir seen biir kër ne bu taal bu ñu boo xam ne mooy kii di Adji Sarr boo ko déggee si ay cas donc mu nalaw sa maintenant c'est ton euh, lu mu may def parce que loo xamante ne dafa war a nekk ci yoon la lu war a du justice war a war a la parce que fii euh, jigéen bu nekk am nga droit tëdd nelaw am nga droit nekk si sa jàmm euh, bu fekkee def nga jàmm donc boo defee jàmm wax dëgg yàlla jàkk naa ni yaakaar naa ne jàmm rek nga war a am en temps normal donc loo xamante ne dafa nekk ci loxo yoon la te xam naa ne yoon dina ci doxal li mu war a def. nekk ku jege kii di Wally Ballago Seck yëpp ñuy dégg ñu naan Wally moom takk takk suuf amoo ak aw ma benn information bu la si yoo xamante ne yéen a ko def. ay rumeurs donc waaw yéen a a ko wax. donc li ngeen di wax xam naa ne Wally moom wax dëgg yàlla man mi nga xamante ne maak a bokk ndey ma wax dëgg yàlla ñaaniwu ma as tuuti ma ko. donc du coup euh, euh, <laughs> daf ko takk takk suuf ak yooyu yëpp ngeen di fësal di ko wax xam naa ni waaye nag moom moo leen di dundal yéen seen site mais <laughs> wax dëgg yàlla ñun ñun ñun ñun ñun toll ñu tukulóor Koura Ndiémé foo xamante ne dañuy takk-takk suuf na wax dëgg yàlla ah boobu tàppe non non non non boobu boobu boobu boobu ragal nag nekkul ci sama waa wax dëgg yàlla foog du ay rumeur wala ñu ay nit yoo xamante ne ay nit yu non sens ñooy toog di wax ay ay sottise ngeen leen ngeen koy gëm nag di titre ñu dellu si waat ci journée de la femme tey ñu bu jigéen comme ma koy waxee saa su ne xel yi day dem ci waañ ba wala ci kër ga bu fekkee da nga dugg si fii nga gis ci derrière les barreaux ban yëg moo tax ñu ñëw nekk ak ñoom Euh, pour épauler leen wan leen ne ci société bi la ñu bokk parce que tamit euh, euh, ñu préparer seen réinsertion loolu moo ëpp importance tey jii nit di nga wéeru sa kaso waaye nag ak ak dignité ak personnalité ba boo génnee nga fexe bokkaat ci société bi tey jii ci ñoon loolu lañ leen di ñaax ñëw solo ba jekk comme ni ñuy toogee ci plateau wan na leen ne que nit wax dëgg yàlla xaru jullit moomu ko nit sax moomu ko donc am nañ droit vivre am nañ droit dund ndax wax dëgg yàlla yàlla ci boppam mooy c'est le seul juge ah y a personne d'autre waaw merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup